Assane Diouf délégation bi mu àndaloon fële ca kanamu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ginnaaw bi mu ñëwee jotal ko ay kàddoom jéggalu lenn ci ay kàdd yoo xam ni daana ko yëkkati ba muy nekk Amérique mu ni ko Mbacké Balla la ma daan def du lenn lu ci nekk mbirum yàq waaye dafa am ñoo xam ni dañ maa jiñoon terroriste jëlee ma fële ma nekk ngir indi ma fii ci Sénégal la taxoon ñu indi ko fii ci Sénégal moom Assane Diouf di yoot ngóor soosu ñu naan Ousmane Tounkara ba tax na Assane Diouf jooyal na ay kàddoom ci sëñ Mountakha Mbacké ngir mu tinu kooku le di Ousmane Tounkara ak yeneen i kàddu yoo xam ni dañ ci ànd ak Assane Diouf. maa ngi jéggulu ci yenn kàddu yi nga xamante ni bu yegg seeg bu yegg siwul dem na ci nopp Sénégal yëpp li am jamono yi weesu moo taxoon nit ñi di dégg Assane di faar ndax bu fekkente ne réew da nga cee nekk bàyyi fi am fi ay mag yu baax ñu toog rek loo soxla boo ñëwee ñu ñaanal la ko ñu xëy am ñoo xamante ni kenn xamu leen noonu suñu bàyyi sonn lool ñu ñëw jiite ñu ba pare du ñu déglu kenn. moo waraloon ñuy dégg yenn kàddu yi ci man ma ci jéggalu bu baax. di la sant bu baax tamit comme gisanu la. waaye li ma gën a soxal ci yegg si bi ma yegg si fii man ku nekk xam na ne Amérique laa nekkoon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke sa mag jom moo tax moo ma yóbbuwoon Amérique ma demee mosuma laaj yu fi jàmbur mosuma tooñ mosuma def lenn mu commencé di jooyal sama réew ñu fekk ma fa jiiñ ma terroriste ñu am suñu benn mbokk mu ñuy wax Ousmane Tounkara. muy sama xarit nga xam ne keroog bañ ma jàppee ci la ko Sénégalais yëpp xam kenn musu koo dégg kenn musu koo gis ñu jàppaat ko bii yoon jiiñ ko terroriste bu bëggoon Macky Sall ak ñaanal ko mu bañ ko ndax njabootam juróomi doomu mu fa ak soxnaam te ne ñu ngi daal loolu rek laa ko yëg sant di la gërëm baax na jërëjëf baax na baax na baax na mat na mat na baax na baax na